nañ jug xeex loolu. mais am na ñu koy xeex quand mais ma ñi ma dégg ñuy waxtaay yëpp laa nañ jug xeex loolu laa wax nañ jug xeex baari ci réew mi nañ du xeex cagatu gi ci réew mi bu dee diine rek la ñuy xeexal nag. ah mais dañu nekk ci benn boo xam ni pays bu démocrate la nag. kon bàyyi bàyyi Cheikh Bara Diène ak démocratie. ba ci laal façon si jàmm aussi. voilà on n'est pas nag nañu accepter la contradiction Cheikh Bara Diène mu non duma la ci bàyyi. ma ci bàyyi sama may ko mu continuer may ko mu continuer duma ko ci bàyyi. loolu duma ko ci bàyyi. d'accord d'accord mu ñëw Souleymane Diop bu ñu doon saaga sëriñ yi bàyyi nga nga bàyyi. parce que Souleymane Diop bu ko wax dama sama papa. demoo fenn man bàyyi ko bàyyi ko moo. paa Moussa man duma ñooñu. non bàyyi ko moo man foo ma kaf ma ci réew ma ci

mais loolu tegu ci euh, diine hmm. Serigne Touba loolu la xeex ku ne disciple Serigne Touba xeexal hmm. loolu hmm. dama ne ku kuy taxaw rek bi fëgg dënn ne Serigne Touba Cheikh Oumar Diagne serait le da ngay politique bàyyi bul bul bul mu woo bi da ngay politiquer Serigne gis nga fi lu gën a doy waar ci réew mi waxoo ko. man bu wax li may wax avancé wu la. mais sëriñ bi rek nga fi taxaw man yaay politique yaay politique yaay défendre yaay défendre sa xaalis politicien. yow yaa koy défendre. d' accord mais ci politique du ma ko ci débat politique. d' may ko mu jàll. ci sama a ah, d' accord sama ngëm-ngëm ci laa nekk. am nga ci droit mais may ko mu eggalee après ñu continuer alors Pa Moussa. cette diabolisation. Mm-hmm. du jàll su soo ko. moom itam sa diabolisation muy diabolise tarixa yi. du jàll en aucun cas la société mouride. d' accord et ti tar les tarixa ils ne vont ne le vont. d' accord ne le faciliteront pas la travail. d' merci Samba. alors ça may continuer après am nga sa droit de réplique. allez allez-y dans la manipulation. vous vous êtes dans la délation. Samba est dans la manipulation dans la désinformation totale. Cheikh Omar Diagne. Cheikh Oumar den leen delluwaat ci li nga xamante ne moom lay ñaata joon nga koy dégg muy def des témoignages ci Serigne Touba man ma xam ko man dafa ko doon suivre lu ma wax dégg xaw doon ay dagg du vidéo la. Hmm. dañ koy gis donc kon xam nga lan la. Hmm. Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba li mu li mu li li mu xeex ci bañ nooteel ses ennemis jaar fu ne pour jéem a fay lii muy woote. Hmm. bu ñu bëggee jëriñ ñun le mouridisme comme modèle économique comme projet de société bu ñu bëggee jëriñ. dañuy bàyyi xët-xët yeeg daanu leer yeeg mbëkk miir yeeg yëpp. te ah, teg ko dañuy xët-xët dañuy daanu la dañuy. parce leer. ñoo mbëkk miir ñu ñoo tey. ngay def nii daanu leer. bàyyi li ngay def sax ñoo tey. bàyyi ba cest affaire bi. dooy dooy fëgg dëgg. non ñun ay dagg munoo wax a wax a wax yow wii laa yow sama noonu munoo wax a waxa a wax a wax ba bañ loo Cheikh Oumar Diagne euh, Serigne Touba. jéem a ko bañ loo Cheikh munoo ko. so wax ko. munoo ko da nga ko mën ma ko si téléphone. maa ngi dañuy dañuy dañuy jàppale. quelle que soit la position que tu occupes dans l' état. d' accord Samba d' accord Samba quelle que soit la Samba je l' mu terminer Samba may mu terminer allez Pa Moussa may ko mu terminer Samba. la nga defee dara man sama yoon nekkul. d'accord lu mu wax am lu dul wax waaye ku attaqué Xaadimu Rasuul. d'accord Cheikh Ahmadou Mokhtar Sakho. am am nga ci droit am nga ci droit mais may ko mu eggale s'il vous plaît. kii allez-y pardon. non man débat kii vraiment dañ ko war a kii ci débat bi quoi ñu coupé micro am wala sama doom ji nu message. nu message saa yi xam nga dama bàyyi. bàyyi ñu wax rek. te jël affaire bi ak lucidité. lisibilité dañuy demee xam nga yaay yaay nekk Samba defal Samba Samba pardon. xanaa mu nekk en état d' accord d' accord am nga am nga sa droit réponse après am nga sa droit. non non non non suñu wax si seen tubaab duñ am sago. waaw d' accord d' accord. waaw duma ko déglu ci côté boobu. d' accord man duma ko déglu ci wàllum wàllum faram bu ne. waaye dafa ne kuy attaqué tarixa d'accord Cheikh Ahmadou Bamba du ma kenn loolu ñu attaqué Serigne Touba man boog at. nanguwul ko man man nanguwul ko mu eggale aussi. mais ko mu eggale aussi. ma su ma gënee kon. lépp loo xamante ne Samba ma bàyyi. Samba Samba. Euh, comprendre nañ fi nga waxee am nga droit défendre aussi mais moom aussi am na droit wax wax. wax xalaatam d' accord léegi may ko mu wax xalaatam. d' accord may ko mu wax xalaatam may nit nit ñi mu doon euh, euh, ja safonteel mm-hmm. ci àdduna. Mm-hmm. ak ñi mu bokkal diine. Mm-hmm. bokk na ci ñi mu gën ci ñi mu gën ñi alxuraan nekk seen dënn te man gëm naa ne.

yow xamoo ko lu sama xol yow xamoo ko. sama dafa soo nekkee di témoin ma gën a gën yàlla booba yaa ngi yaa ngi un blasphème yaa ngi def te yaa ngi def lu gën a garaaw ci témoignage. d'accord soo témoignage. d'accord Samba ma ma ko eggale allez-y. le débat en question. Mm-hmm. Mm-hmm. n'est pas religieux. ñii dañuy politique. yéenay politique. po po po po po po. Samba Samba déglu nag respecté li ñuy seetaan quand même. non mënuma déglu li ngay wax. Samba bàyyi bàyyi ma mais dinaa. Samba Samba je suis pas d'accord avec. Samba dinaa la nga wax li nga wax jeune homme. ce débat vous plaît may ko étaler rek après ñu continuer. pas religieux ah a attaqué oh, oh, ah, d'accord may may ko mu may ko mu après ñu continuer allez allez-y. ay manipulation euh, dañuy politique politicienne. la bëgg a jël régime bu nekk en place di doxal. ñu jëli ay waxu 2000 xaw ma ñaata. bëgg see waat ko bëgg see jafandiku ci pour jéem a ut lu ñu attaqué. mais mais quand même di nga d'accord l'avenir l'avenir fait le passé. Euh, astaghfirullah le passé fait fait partie de euh, nu ma ko mën a waxee avenir mooy. passé mooy mooy mooy mooy mooy feeñal avenir quoi voilà. loolu peuple sans histoire d' accord d' accord léegi Amadou fait partie de ko may ko may ko ma eggale. gis nga di ko jël sur le plan émotionnel. li mm-hmm. fët fët réglé wul dara te mënoon nax kenn ci Sénégalais professeur Cheikh Oumar Diagne mënul def conférence de presse mënuñoo wax a wax a wax gars yi def conférence de presse la wax effectivement mais Samba il a eu l'élégance de t'écouter de me mettre mais non bàyyi ko nag Samba mënuñu continuer tam si débat quoi comme ça

merci beaucoup mais may ko mu eggale s'il vous plaît quand même bi ngay wax bi ngay wax déglu na la mais may ko mu eggale waaw d'accord non dama koy déglu ci logique dama koy déglu ci qu'importe qu'importe lu man wax d'accord d'accord je vous le conseille je vous le conseille Samba Samba mais non bu fekkee loolu d'accord léegi d'accord merci d'accord d'accord Samba d'accord Samba Samba man je calcule pas si tu crois ou tu ne crois pas. d'accord d'accord léegi am nga ci d'accord léegi am nga ci droit am nga droit wax li nga gëm bi ngay wax kenn coupé wala la parole aussi ay au moins l'élégance déglu ko comme ni ñu ko waxee déglu ko mu après am nga droit aussi nga tontu. am na droit moom wax wax lim wax lim xalaat allez-y Pa Moussa léegi li ma li ma lay li ma lay li ma lay li ma lay laaj mooy est-ce que tey jii kàddu yi nga xam ne Cheikh Omar Diagne di ko ba ñëpp di ci wax du indi malaise au sein du gouvernement. ok euh, xam nga kii nii euh, kilifaam ci politique sëriñam ci politique. moo fi taxaw naan rajaatu raditu moom kilifaam ci politique moom moo dam euh, ay ay ay ay ay ay donc bu defee nii rek garaawul quoi salaatul ala fatiha la euh, kilifaam ci politique di wax. ndax amul dara ci alxuraan saa yu waxee. dara xam nga léegi bu bu bu ñu delloo ci li ma la doon expliquer Abdou mm. Khadre mm. mooy ne tey ji nii y' a aucune désinformation. amul benn manipulateur bu mën a dugal ci bopp Sénégalais yi ne professeur Cheikh Oumar Diagne dafa bañ Serigne Touba mais professeur Cheikh Oumar Diagne euh, euh, la mu doon ci diine li mu am ci euh, gëm-gëmam loolu c'est quelque chose de privé à lui on est d'accord là-dessus mhm. l'islam gi ñu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu jàngal ne wuute gi am ci doctrine mhm. yiw la ce n'est pas source de problème comme il le pense diine wu science lañ nekk diine wu xam-xam la nekk mhm. te wax dëgg yàlla ci xam-xam googu noonu mais ay ay ay ay ay ay borom yi xam-xam yu bare bare bari. am hmm. nañu ay wute ci yu bari teew dañ koo traité de la manière la plus euh, élégante possible. donc hmm. kon professeur Cheikh Oumar Diagne ak li mu doon ak li mu gëm. Hmm. loolu du débat bu ñuy teg ci pénc bi ñii li ñu jéem a jëlee loolu noonu ay at bëgg ko delloowaat ci pénc bi laa ne loolu politique la manipulation la parce que dañoo bëgg rek am lu ñu yëkk ci teg ci deru euh, président Diomaye. wala nguuram moo tax ñuy def yii mais liy wér te wóor moom mooy professeur Cheikh Oumar Diagne dafa am parti politique parti politique boobu bokk ci coalition Diomaye coalition Diomaye boobu moom moo leen duma à Touba à plus de quatre-vingt pour cent ñooñu xam nañ sëñ bi ñooñu xam nañ Diomaye ñooñu xam nañ luy professeur Cheikh Oumar Diagne ñoom seen parti ak seen candidat fii ki dërëm amuñu ko Touba. luy de moo leen metti te duñ ko bës a amati. loolu tout le département de Mbacké noppi la en matière pétrole donc kon on ne prend pas Touba en matière pétrole mais nous nos croyances fekkoon ne matière pétrole kese amaana ñu doon ay mais man on nous nous assumons notre appartenance à Touba malgré tout le président Macky Sall n'a jamais gagné à Touba d'accord et tout ce qu'il a fait à Touba il n'a jamais gagné mais nous l'assumons waaw d'accord d'accord merci mais ça ne sera pas une source de motivation pour ñu attaquer Touba amul loolu am problème allez allez-y jamais nga fa lañ tàmbalee loolu du ñu Sonko salafiste la yaa ngi fàttali quoi. Mhm. gëmul tarak xay te lu yëpp am na fa. échec total. ci loolu lañ bëgg a utaat beneen prox ndoolu mais du ci daal c'est faux. mais quand même mais quand même c'est faux bàyyi la mais indi na coow quand même indi na coow loolu aussi il faut ñu il faut ñu kii ko ba moment ba ko ba muy doon coow. Mhm. moment bi euh, Cheikh Madi wax yooyu tegaat loolu sur la table bu boobaa dinañ ci discuter mais là je discute pas de ça parce que ce n'est pas d'actualité. lii lii lii ngay génne yëpp ci ay vidéo ça date de très longtemps lan moo tax tey jii nii ñu war ko teg sur la place publique lu tax. mais d' accord ante ante antécédent yooyu bu amee est ce que du yàq. lenn ci diggante état ak ak kii bu dee loolu dafa war a tax. président Diomaye na dàq Cheikh Oumar Diagne bu tax ñoom démb waxuñu Macky Sall dàqal euh, Souleymane Jules ko. rek dàq na fi aussi waaw dàqul Souleymane Jules Diop rek. man li ah, mu gis may ko méggale may wax nga ko sànq quoi wax nga ko sànq manifesté nga ko ci sa page Facebook demandé nga ah, xuloo nga ci ak euh, ki yoroon ki nekkoon Dakar dem mais may ko mu eggale quand même Souleymane Diop dafa ànd ak Macky Sall du début jusqu'à la te kooku moom moo fi taxaw lu mu yekkuwul euh, sëñ Abdou Aziz Sy Junior mhm. ay saaga yu leer naññ wax ko Cheikh Béthio Thioune wax ko Cheikh Modou Kara ñun ñëpp ñuy déglu quand même euh, euh, professeur Cheikh Oumar Diagne mëne na fi ay débat yu tàng jër ak sang Barham Ndiaye pourtant ñoom ñaar ñoo bokk Maulana Cheikh mhm. mais parce que loolu la quoi débat la d'accorduma ci lii d'accorduma ci les gars yi saagawul kenn professeur Cheikh Oumar Diagne saagawul kenn gis nga ñu koy saaga non gis nga ñu jug saaga ko clairement pourquoi dénoncer mais attends euh, mën nga bañ a d'accord ak moom nga argumenté jarul saaga gis nga ci koo xamante ne dafa wax ba saaga ko clairement ñëpp di ko gis. mais gis nga mu saaga président te dara fekk wax ji est ce que ah, donc kon donc kon mën mën nga bañ a d'accord ak moom ci sa position. Mm-hmm. par rapport ak tel ou tel point. Mm-hmm. nga ne ko d'accord ma andi say argument am na ñoo xamante ne euh, peut-être ni sàmba la ñuy def xët xët am na ñoo xamante ne euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi. neexul man Charles demoon na fi je suis Charles Charlie Hebdo. bi ma gën a am na ñoo xamante ne dinaa ñëw foofu dinaa ñëw dinaa ñëw foofu dinaa ñëw foofu loolu yëpp garaaw loolu yëpp de. dinañ ko xool ji Abdou Khadre di ngay dégg Cheikh Mouhamadou Rafaay di ngay dégg Cheikh Mouhamadou Rafaay. Mm-hmm. bu baax. bu Sëñ Fallou yii dem moom laa faral naa dégg. Sëriñ Fallou mm-hmm. euh, am na. ki euh, recteur université Cheikhoul Khadim bi euh, doomu Serigne Fallou la tamit moom moo jaaxaloon Ablaye Wade ci diplôme